tàmbali ko ak fi nga xamante ni dëkk bi ñu wax njokkul voilà njokkul boobee moom dañu waa imaam ya ak noté notable ya mhm. ñoom ñoo génn foo ca dëkk ba maanaam ca pénc ma di nakarlu wàllub immigration clandestine bi nga xamante ni dëkk ba benn góor wala sax benn ndaw desatul sa dëkk boobee ba tax na kat ñi nga xamante ni ñoom ñooy nota notable yeeg imaam yi ña ngay euh, yëglu tey euh, mettitlu li nga xamante ni moom mooy ñàkk euh, ñàkk ndaw ca ca dëkk boobee di Euh, euh, jokkul ndax euh, mu ngi wax ne ci ci ci biir Vox Populi ne xale yooye li tax ñi dem màngaan yi dem du leen lu dul ñàkk liggéey loolu rek moom moo fa loolu rek moom moo fa am ndax xale yooyee mënuñu toog ci dëkk booba mm. di gis seen i waajur amuñu leen loo xamante ni mën na leen ko jox moo war a sax ñi daal di màngaan yi dem fi nga xamante ni moom mooy ca gaal te tamit ndax ci dolli xale yooyee ñaari soir rek la ñu am moom mooy dem dem fi nga xamante ni moom mooy def immigration irrégulière wala sax ñi daal di des ci dëkk bi di naan ak tuxi yamba ba tax na kat jamono ji eh, dëkk boobee wóoratul ndax ña fa des ak as néew eh, su metti woon dinañ dal ci kaw jigéen ñi wala sax li nga woowe eh, troisième âge ba teg ci foog Vox Populi ñëw nataalu ki nga xamante ne moom mooy njiitum réew mi di ñu xamal ci élection yi ñu jëm. réumi ñom ñoy euh, manam sax peuple premier tour wala deuxième tour li ci Madame am euh, mom lam fi liggéey euh, dal na xel lolé yépp su population bi continuité lay doon ci ki nga xamanteni moy di Amadou Ba su ko li nga Amadou Ba bis bu continuité liggéeyu lay voilà jël beneen nit. teg ko ci beneen candidat euh, teg ko ci li nga xamante moom mooy njiitum réew mi luñ ci góobe rek euh, nañ ko gar waaye moom njiitum réew mi ba tey ci vox populi mu ngi xamal ne bu jeexalee nii Abdou Diouf defoon rek loolu lay def ngir dem toog euh, wéyali leneen xoolaat leneen bàyyi Sénégal du ko bàyyi waaye tamit seetaan nekk ci ginnaaw gars yi ñi daal ñi daal di doxal. d'accord ñu dem Sud Quotidien. Sud Quotidien moom nataalu njiitum réew moom tamit la la tegaat di ñu xamal naan ñu gannaaw maanaam sax fukk fukk fukk ak ñaar. ñaari at yi nga xamante ni eh, njiitum réew mi def na ko ci njiitum réew mi eh, jamono ji gouvernement bi moom eh, dañ koo jekku jokk loolee ba tax na kat jamono ji gouvernement Macky Sall tëddul njaaxanaay en fait.

maanaam ñàkk jubóo googee euh, après lan mu lan la jur ci ginnaaw euh, Macky Sall ba tey Amadou Ba moom mooy président euh, wóor naam wóorul. Mm. jamono ji. doy na waar euh, on peut dire que ni euh, yàlla rek moom moo xam ba xam du Ba moom mooy président wala du. président ba tey si point acte du ñu xamante naan parti bi di PS ak PDS euh, ñoom tamit lan mooy seen lan mooy seen suba su Macky Sall wala wala parti bi di APR gañulee li nga xamante ne moom mooy élection yi ñu jëm ba tax na kat APR. dana exister su su su perte. Hmm. wala man daal ci ginnaaw Macky Sall daal. <laughs> ñu dem la témoin. témoin daa ñëw ak nataalu Bougane Gueye Dany nee nañ gannaaw ba mu jooyee ki nga xamante ni moom mooy soxnaam si baax soxse di eh, eh, moom yi Dany moom njiitum réew bi artu eh, maanaam Bougane Gueye Dany mm-hmm. ma ngay artu war a def li nga xamante ni moom mooy open open open open press voilà jërëjëf open press tour Bougane Bougane 2024 moom la ki nga xamante ni moom mooy Bougane Gueye Dany di waajal témoin moom moo moom moo moom moo moom moo waxee mu waxee loolu ñu dem ci tribune tribune nee na euh, Kaffrine lay dem Tamba jàpp euh, Kaolack ak Fatick lépp rek ñu daal di jàkkaarloog Macky Sall ngir xool naka lañ mën a def ba ndërmeelal ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew mi actuellement lu ko waral ndax gis nañu budget yi euh, euh, gi euh, doyul am na ñoo xam ne suñu ndékkee du ñu añ am na ñoo du ñu reer am na ñoo xam ne sax suñu reeree bu subaa tamit du ñu ndékki jamono jooju bi ña ngay am li nga xamante ni moom mooy jaaxle ci wàllu dundin jamono jooju budget yaa ngay yokk ki nga xamante ni moom mooy Mansour Faye moom budget tamit jamono ji ñu lancé nañ ko li ko waral moom mooy wàllu yoon gi ak ñoom seen transport beeg yooyu yëpp euh, Mansour Faye euh, budget ba mu jugee woon yokkaat nañ ci diggante euh, cinq cent cinquante et un non soixante et soixante mm. et lépp rek ñu daal koy xool ci wàllub wàllub yoon geeg ñoom seen waaye tamit am na ñeneen ci turbine am na ñeneen ñoo xam ña nga yëglu mooy jaaykatu journaux yi mm-hmm. ñoom gisuñu seen bopp ci Sénégal mm-hmm. ndax fi ñu doon jaayee mille francs jamono ji léegi su mettul ñeent fukk lañ fay jaay ñu daal ñu dem les échos moom ñëw ñun ci lu doy waar a woowee parce que euh, yoon bi di sortie neuf bu Kër Massar ab Njaga Njaay moo sol ay nit ba mu fees euh, mujj daal di daanu ca loole ca accident boobe am na ñaari moor kenn koo xamante ni moom enseignant la woon da doon jàngale ji euh, moom mujj naa ñàkk bakkanam euh, ci accident boobee am na vingt trois blessés ci accident boobee am na ñoo xamante ni euh, blessé grave la ñu am ñu ngi ciy diggante dund ak dee ba tax na kat su moytu lim ñu ñàkk seen bakkan dina yokk ba tey ci les am na ñeneen ñi nga xamante ni moom démb dañoo dañ leen doon noggatu sax moom laa leen mën a waaye di. lion Sénégal yooye mm. euh, sunu sunu gaynde yi démb dañ leen tenu la euh, échec ñu leen ñu leen ñu leen ñu leen ñu leen tëwoon mm. euh, di ñenn du du ñeneen ñu dul Togo mm. démb match bi doxoon ci diggante Sénégal Togo gis nemmeeku nañu ci quatre-vingt-dix yoo xamante ni Togo moom moo moom moo fubal loolu yëpp waaye li gën a doy waat Togo amul benn star ba pare

Mhm. maanaam ci euh, maanaam tongoo goo xamante ni euh, Sénégal mënoon na faa gagné waaye euh, bon gàcce la ci ñun ca jamono jooju tey ji li ñu wooye lionceau maanaam génn yu ndaw yooyee war nañoo tàggatu tey diggante ak France su 12 heures jotee ndem sopp na yàlla. d'accord ñu jeexalee ko suñu. lamb suñu lamb bi di Siteu ak ki nga xamante ni moom mooy Balla Gaye ñu ngi ne ma ngay waaj a taxaw ña ngay rombalaat ci loolee ngeen ñu daal taxawal ak combat bi di Balla Gaye ak Siteu mu <laughs> nar a doon combat boo xamanteni <laughs> ah. dina doy war dina doy war ni daal di jeexal foofu dem soo ko yàlla. d' merci beaucoup euh, Mara ma di ko jaajëfal bu baakha a baax ci.